asalaamaaleykum euh, mbokki téléspectateurs yi mbokk internet yi tey jii ñu ngi fii ci collège Saint Gabriel fii nga xam ni foofu la euh, ASC Guney Caali di defee entraînement am euh, ñu ba fas yéene leen nag won exactement naka lay préparer son match contre ASC Ngalam. nous ñu dalal fi nak euh, le président de la commission sportive voilà commission d'organisation le président de la commission sportive di Alpha euh, euh, teg le grand major l'entraîneur de l'ASC donc ñu fas nak wax ak ñun exactement ci naka lañu ñu ASC bi ses débuts naka lañu également préparer cette marche Alpha bëgg naa présenté parce que ben, présentation bi dafa am fu ma ko yemale quoi peut-être di ci des yaa koy ah, euh, merci coach coach une coach c'est une perle. de di di rafetlu liggéey prestige di comme le euh, coach waxee rek man maay Alpha Kébé président commission sportive bu ASC et major, je suis entraîneur ASC Guney Caali voilà le yow major. bon donc yow présenté wul parce que major. ah bon maa nuyu ami internet yep di nuyu waa télé. sa jaar-jaar nak parce que ay xam nañ ko de. Thiès <laughs> bon di la nuyu bu baax Khalifa sunu papa aussi nani père Khalifa bon di nuyu ñëpp dal bon di wax ni man ma euh, Madior Diop <clears throat> ñu gën ma xamé ci côté AC Avenir bon di di di ancien joueur bon di coach AC Thialy mais par intérim ndax mën nani Djibi Sow un coach titulaire bi mais vu que dafa xawa am touti tawat ci yaramam mu jël ma tek ma fi pour ma ko fi di doxe ay ay ndigalam dal waaw fi indi ma euh, coach mais par intérim mën wax maintenant Alpha. Euh, milieu parce que je crois que amon nga fi ay palmarès yu am doole hein ah, par rapport ak eh, ASC Taliban ana année sax ngeen jël eh, la coupe la coupe la coupe départementale la après ngeen télé sour bon mais est ce que ren jii di ngeen am loolu. waaw bon am na si yaakaar nag parce que c'est vrai que 2014 man personnellement boobu laa gëj a impliqué wu si si Thiali c' vrai que même si au début nekkumoon sa président commission exécutif par la suite lan ma copté pour ma ñëw liggéey équipe bi. mu nekk une bi jeune soo xoolee tey Madior Seck jeune la man président commission sportive jeune la président bi jeune la ay joueurs jeune la donc ren danoo bëgg a bâtir une bi jeune sur sur tous les plans mais nag dëgër laay mag ñi nekk ci koñ bi ñoo ngi ciy jàppale soo xoolee lépp luy gravité autour de l'ASC Guney Caali ren c'est une bi jeune équipe jeune ay jour ay jour yo xamné ne. ay xa ay jeune ay jour yo xamné ne mais mais mais damay damay forte ay yooyu bëy ñu nan caal def ren parce que xaaral seen premier match bi yéen gagné. waaw ñoo gagné. yalla moo tax kenn ngeen yakkar ni fi mu ne nii ku ñëw rek ngeen faagaagal ko mais parce que yéen une équipe aussi jeune. doo ko préparer sax pour ñaari at ñetti at. waaw c'est vrai c'est vrai on on se donne pas comme ça objectif objectif ren mom on essaie de bâtir une équipe parce que nekul suñu objectif nekkul caali ren caali dans deux ans dans trois ans mais nag ça ne veut pas dire que dañuy bàyyi gars yi gaye da nga joxe da nga joxe lax bi ñu dóor. waaw non loolu moom loolu sax gaay xam ne du caali parce que caali tamit lu mu bon bon bon am na expérience si nawetaan parce que année bu ni 2014 bu ñuy gagné euh, départemental c'était une équipe aussi jeune que ici même équipe la woon ay xale la woon équipe ñu doon gravir tour équipe bi tam ay xale la ñu woon. am na expérience bien vrai que ay xalé lan mais expérience si si donc match ñoo jaaxal ku final départemental instant instant bobu nek au sommet au sommet de de son art ñu fi ñu jé ak yépp football une bonne encadrement gagné len donc nous ñun ñun vision inshallah. la am si sport vision bobu la am ren non lañ bëgg continuer. Euh, ma jëm ci Madior tuuti parce que gars yi xam nañ la dé Alpha gars yi xam nañ la dé gars yi dinañ la faa dinañ la préparer mais Madior. yow tu as été un grand joueur ça il faut le reconnaître hein. parce que moi euh, sa carrière nous mu gàtt ça ça m'a ça m'a fait mal. parce que je me disais que Madior était presque l'un des meilleurs milieux de terrain de ces de de cette région là voire même du pays mais nga jékki-jékki rek arrêté ko mais est-ce que du dof entraîneur moo la jékki-jékki rek neex la wala je ne sais pas moi parce que man Madior yow balaa may dugg sa kii wu caal mais pourquoi ce cursus war a jékki-jékki rek nga yemale ko. bon man moom man moom sama cas dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a doy waar tuuti mën naa côté familial ci la bokk et aussi ay blessures aussi ci la bokk waaw j'ai vécu waaw j'ai pas mal de blessures yoo xam dama dem ba benn sens je me je me dis que su ma bëggee jouer au niveau yëkkati sama niveau yi am na blessure yoo xam ne warul ànd mënul ànd mënul ànd quoi vraiment dama dem ba benn instant ma yedd sama bopp donte ne teel na mais euh, ak tamit boo nekk soutien famille war a liggéey war a xam nga donte ne j'ai pas mal voyagé xam nga j'ai même été capitaine équipe nationale junior avec les gars Gueye Pape Ndiaye Souare et tout Kara mais à un moment je me suis dit que su ma continuer je risque de rater quelque chose je xam ko peut-être bâtir quelque chose ci côté travail liguey pour mën gérer sama famille Le football bi dafa dafa dafa dafa gàtt risque après watch, bi day metti dal tax arrêté et pourquoi pas aussi lima xam as à l'extérieur xam nga ndax touti expérience la même bu choses, la jot ko ma parce que mes frères nous nekk fii fille j'ai habité à Tchali, j'ai même joué à Tchali. donc quand ma gars sont venus si man ils n'ont même pas fait ce grand déplacement pour venir wax ak man dañ ma ko je les ai dit pourquoi pas Ils m'ont jàppale Djiby Sow nekk si apprendre aussi Je ne sais pas, je ne sais pas pour au xam si kanam au futur ah, tamit mën na mën na waaw amin amin amin amin amin amin parce que grand non grand bu baax la parce que aussi parce que que il faut mu waaw surtout surtout loolu lañ koy ñaanal parce que ñun soxla nañ ko daal ndax am na foo xam bu fa liggéey liggéey bi yeggee rek bu fa liggéey bi yeggee rek bon day day day métti si ñun daal waaw parce que comme on dit waaw te ñaan nañ yàlla yegg ba foofu incha allah donte on a une très très très jeune équipe une équipe vraiment ay qu'est-ce fi surtout la grande équipe de de lui qui l'a battu hein. donc euh, mais mais mais mhm. je crois c'est contre hein. oui hmm? mais c'est du lourd oui bien sûr et on accepte aussi parce que galam mon favori vraiment ci rencontre ci vraiment voilà parce qu'il a représenté Thiès hein. ouais il a représenté Thiès au niveau des phases nationales et il a fait un bon tournoi. Bon, joué un match, joué un tournoi à Bohamni. Vraiment, nous n'avons pas apprécié. Ah, parce que ah. certains tournoi bi mais xam naa ni même équipe yi nekk yi représenté Thiès yëpp moo ci. bien sûr bien sûr et tamit loolu la ñëpp gis. Mhm. ñiy dund football yëpp loolu lañ gis. on a vu tamit équipe bu ngalam boo xam ne vraiment équipe bu mag la donc ñun dañuy ñëw nekk euh, comme comme outsider non mon mon favori wa bien sûr nous aussi ñun tamit si victoire lañ jógee mais waaw ñoo le point waaw fi mu toll nii waaw <laughs> ah loolu la ñaan yàlla mais bon on reste tout petit quand même ci avons ah. accepté ñun dañuy ñëw accepter ni ñun dañuy defaraat vraiment caali ren dafa bëgg a defaraat équipe pour que année yi di ñëw bi 2014 ak yeneen dikkaat donc on accepte que nous ñun instant on est supposé d'être l'équipe la plus faible ci rencontre bi mais nak cela ne veut pas dire que dañuy ñëw comme ni nga sank baye ngalam mu japp ñu rek di def lu ko neex bon dinañ def nak match bo xamni mom vraiment dinañ xamni ni ku ñëw ci stade dina xamni ni yi ay xalé am jom lañ xalé yu ñu préparer lañ aussi ci niveau physique ak tout ba paré tamit xam nga seetaan nañu daal vraiment koñ bi ñu ngi jóg préparé. Ah. moom mom il n'a pas perdre moom. Alpha mom moom ñàkk la ñàkk la mënul digérer moom il est prêt à tout mais rek Alpha yow dimbale ko rek. caal caal yëpp mi ngi ngi sa loxo <laughs> comme ni ko comme ni ko comme ni ko coach waxee c'est vrai que ñun ñëpp on a suivi ngalam ci phase nationale et on a apprécié parcours am di leen féliciter ci loolu euh, je pense que position bu ngalam nekkee position bu gën a difficile la mun a adapté euh, loolu parce que moom obligatoirement dafa war a gagner caal parce que c'est une équipe boo xam ne dafa dafa dem ba euh, demi-finale phase phase nationale donc su dajalee caali boo xam ne premier match am la loolu donc moom dafa am dafa war a gañe caali obligatoirement donc ñun loolu xam nañ ko te ñun daf challenge la ñun maanaam loolu daf ñu gën a motiver dañuy gën a motiver on se donne pas la pression teg pression joueur yi kat da ngeen war a gañe ngalam championnat la ngalam étape la après ngalam yaa y aura d'autres matchs donc ñun noonu la ñuy préparer parce que dañoo am une vision claire nawetaan c'est vrai que caali ngalam moom sum mu ko waxee ak su mu ko waxul nekkul match bi yomb mais nag. waaw dafa yàgg parce que ngalam aussi ci biir caali la génne waaw donc donc ba pare euh, année yu mujj yëpp euh, bul bi dafa tourné caali mooy gagné ngalam. Euh, loolu rek ay revanche yu bëri yoo xam ne ngalam dafa war a jël si caali donc ñun on est serein match bi dañ koy aborder comme du nekkul dañ koy aborder comme yeneen match moom moom ma mais nag. xam naa ni ñu nag ngal ñu caal dina pare waaw loolu moom am naa si lu ma leen. léegi balaa ngay tëj. Mhm. balaa ngay tëj de façon. c'est un match de football. c'est football waaw mhm. Mhm. kenn mooy gagné wala ngeen match nul match bi jeex. c'est ça dans le même quartier donc on n'a pas muy am ay ay échauffourées yooyu. comme ni koy yenn yenn koñ yi defee ñun Louga Thiali dépassé di crois que dépassé ngeen dépassé ngeen dépassé ngeen loolu léegi lan ngay tàggoo ak di ko ñaax waa quartier bi par rapport ak euh, waaw bon euh, marché boobu waaw comme comme ni nga ko rek Thiali ngalam marché la après marché bi ñu ñu nag waa ngalam yi ñooy toog chaque instant ñooy toog ñooy ataaya marché bi suñu demee football yi ku gagné keneen keneen kii félicité ko ñu encouragé keneen ki di woo waa Thiali parce que c'est une équipe jeune boo xam ne soxla na ñu dëkk si koñ bi jàpp si ñu nekk sa ñu fi nekk ak ñu fi nekk ñëpp ñu jàpp si équipe bi parce que am na lu ñu bëgg a bâtir parce que au delà du football te ren ASC Thialy Ngoné Thialy nekkul football rek ñun dañuy gravité autour de lépp loo xam ne ASC dafa war a dox si gox moom lay moom lay moom lay loolu donc lii étape sport moo gën a visible nag si lu lu ñu mën a def parce que loo mënti def ci sport bi sori woo wala dara du ngay def après du lool loolu donc ñun waaw ñoo ngi ñoo ngi woo ñëpp ñu préparer match bi sereinement ñëw stade euh, yàlla may ñu ndam kanam. voilà euh, Madior euh, bon yow yaa ngi ci préparation boo xam ne aussi c'est un match c'est un match de football ce qui est sûr certain mooy ngalam comme ni ma ko waxee Alpha favori la favori la ci compétition yi. mais du sax favori ay régional ak ay parce que phase nationale moom boo fa demee benn forcément c'est objectif de léegi phase nationale la bon donc rien ne peut-être que aw caale amoon fi opportunité boobu mais malheureusement euh, euh, saisiru ko pourquoi parce que rien ne peut-être comme li nga Alpha wax bon donc euh, équipe c'est une équipe très jeune bon dem nañ ba jël département daal finalement ñu suur sax quoi ñoom ñu doyal parce que pour ñoom bon et puis daf bëri ay élèves aussi il fallait ñu dem jàng ainsi de suite bon mais cette fois-ci euh, Charlie d'après comme le président de la commission sportive j'ai vu que l'objectif si pas d'aller gagner tout de suite tout de suite tout de suite c'est-à-dire il est en train de préparer une équipe pour deux ans au moins je crois bon donc préparation ce qui est sûr et certain moi, euh, Beaucoup dina encore Charlie bi euh, ana mais actuellement ni ni. un match de football Charlie ngalam derby qu'on a fait, euh, mais c'est toi l'entraîneur de définir exactement la politique technique sportive bi nga xam équipe bi au stade waaw pour mën au moins même bu ñu ko gagné mais mu def un bon résultat xam nga defaat ñu gagné la pare un bon résultat waaw parce que l'équipe a bien joué l'équipe s'est bien comportée l'équipe a bien joué, yooyu bon nan nga préparé parce que tant que xam naa une euh, réflexion yi bëri na trop te xam naa ne ngi ciy waxtaan ak aussi bon donc euh, nga may baxé ñu ci rek li nga jotté a préparé ak gibi ak gaw li nga xalaat ni mom mo wara jox résultat ainsi de suite ak yoyep wa waaw wax naa presque comme lima la wax sank rek la lay waxat moy ko ni ñun xam nañ ni xam nañ match biñu jëm xam nañ équipe biñu ñu footballal aussi xam nañ dooleem xam nañ kàttanam parce que boy ñom ñoom nekkando donc ils savent xam nañ donc pour nga pour nga pour nga mobiliser len pour ñu préparer match dina xawa yom ci ben côté mais nak réalité terrain comme on dit du bokk donc nous nag on va essayer de faire lu ñu mën li ñu mën lépp nañ ko def pour que match bi buñ ci génnee comme li ma la wax rek ñu ñu bañ ñu jéppi daal waaw ñu bañ ñu on va essayer de faire un bon match Inch'Allah. mais j'ai vu aussi que euh, l'équipe de Charlie l'a bi ma gis ni entraînement mais gis naa ni y a y a que de de jeunes joueurs mais de très jeunes joueurs De, xam ni presque ren dañuy doog a dugg nawetaan ren la ñuy doog a commencé jouer bon donc équipe boobu d'ailleurs sax premier match première victoire bon xëy na ça motivé mais. nan ngay est-ce que am ban coono ngay àndal booy booy booy booy préparer ñooñu parce que aussi c'est pas facile ak xale yoo xam ne ñu ngi doog a dugg ci stade ah, sax si coach boo xam ne déjà moom musul nekk sax coach. voilà donc donc jeune quoi comme ni ko Alpha waxee biir sax da nga yaakaar damay football. kon Alpha ni mu ko waxee moo am tout euh, a métti. Hmm. mais dañoo nekk ay xale yoo xam neex nañoo waxal. Hmm. man yaakaaroon naa ni vraiment bi may ñëw dina métti trop si man. Hmm. ndax comme xamuguma yu bëree bëri pour man su ma ñëwee dina métti trop mais booy ils sont vraiment man dama leen di gërëm. parce que li ma leen di yenn des fois des fois même man bi may joué sax duñ ma ko yenn. mais j'essaie de la diir que ni li ma leen di yenn nii xam nga lu lu ndaw la ci ci li am ci football. mais dañ koy accepter donte le man je sais ni day métti si ñoom trop mais dañ koy accepter dañ koy def donc neex nañu neex nañu liggéeyal si côté boobu li ci des nag mooy ay xale lañu mais mën nañ football. tàggool léegi ñu dem. donc euh, maa ngi tàggoo di di di di gërëm aussi ASC Thialy yëpp. ci confiance bi ñu ma jox en tant que jeune ñëw dénk ma seen équipe. même bu fekkee ne aussi équipe bu ndaw la aspiré nañ am dara. waaw comme on dit l'appétit vient en lu ñu am rek bon dañuy jël mais buñ sañoon aussi dem ba ca foog ñëpp di dem. donc euh, maa ngi leen di gërëm ci ci confiance boobu noonu di woo bi yëpp aussi ñu génn ñëw jàppale ASC Thialy waaw grand yëpp nañ génn. am na ay grand yoo xam ne moi même dem naa ba si ñoom waxtaan ak ñoom pour ñu génn ñëw jàppale ASC bi donc nañ génn ñëw jàppale ASC bi ndax li ñuy bëgg a tabax nii bis bu taxawee pour ñoom la parce que ñoom ñoo dëkk si koñ bi donc nañ ñëw gën a jàpp gën a jàpp incha allah di ñaan yàlla match bi ñu jëm contre ngalam yàlla mañ ñu ci ndam ndam lu sedd guy et di wax supporters yi aussi que ni match la rek mhm. yàgg-yàgg ñu ñoo bokk koñ ñun ñoo dëkk te ku dëkk caale ku dëkk ngalam mënu ko xàmmee parce que ñu ñëppay toogandoo dina ataaya ñooy waxtaanandoo ñooy añandoo ñooy defandoo lépp donc benn match warul tax rek ñuy ñuy ñuy yor ay comportement yoo xam nit ñi dañuy jéppi hmm. donc ñu jàpp ni match football la déwén mën na amaat hmm. donc buñ ñu gagné ren wala ñoom ñu gagné leen wala ñu yëpp c'est du caali la jëmaat waaw donc ñu jàppee ko match de football di ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndam waaw loolu moom ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax a baax a baax hmm. ah Alpha sa tàggatoo la ñu xaar de waaw ah, bon comme ni ko coach waxee rek. di woo waa Thiali comme ni mu ko di woo waa ñëw jàpp ci équipe bi parce que une équipe jeune neex na jàpp équipe bi neex na jàpp. Euh, di wax comme di relancer Madior ci côté esprit bi c'est un match de football ku mënti gagner football la. ndam bi caali lay caali lay lay parce que au delà soo ñëwee fii amul ngalam amul dara ci fépp caali la donc ndam ndam di caali lay dellu ñu xam ne esprit football la ñu yàmmale ko ci esprit football. waaw. mu doon ay sa caali bi ñu ñëwoon euh, daal di fas yéene tàggatoo ñoom parce que ils nous ont bien accueillis vraiment léegi entraînement caali bi visé supervisé nañ ko am na ñu ci wan. gis au réaction au président commission sportive bi gis une réaction au entraîneur bi je crois que les leaders li le jour ban jour jeudi le jeudi euh, ku ci nekk aussi da nga ñëw pour football pour pour pour pour le quartier pour le quartier parce que ñoom ñoo ñëpp caal la ñuy footballal donc di leen gërëm di leen sant di leen souhaiter bonne chance Voilà, daal la xam ne war naa ko mën a en attendant jour bi merci. asalaamaaleykum euh, mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fii ci Thialy euh, ci euh, ci entraînement wu ASC Ngalam ASC Ngalam bu ñu ko waxee ku ne xel yi bu war nañ dem ci phase nationale donc depuis boobu ba léegi nag après ñu ngi leen doon préparer pour ñëw au moins waxtaan nañ ñoom ci mbir moomu ñu xamal ñu ci ñu defal ñu ci benn débriefing ak il y yi nga question ne moom la ñuy mais maa ngi si sama ndeyjoor euh, Cheikh Silla di entraîneur bi ak sama le capitaine d'équipe euh, Moussa Faye ma war commencer maintenant ci Cheikh Silla mu présenter wu encore beaucoup plus largement après du dogo de jox Moussa Faye. asalaamaaleykum waa Prestige asalaamaaleykum mok internet yi asalaamaaleykum à tout le monde je représente Cheikh Ahmed Yansila, entraîneur de la Ngalam depuis ma sama deuxième année di wax ni avant ñu ñëw fii ñu nekkoon nañu Africa nekkoon nañu ASCA nekk euh, Espérance on a fait pas mal d'équipes mais actuellement ñu ngi si ñu pour l'instant merci. ma ñëw le capitaine le grand capitaine Moussa Faye moom tamit mu def la même chose. asalaamaaleykum euh, groupe Prestige euh, maa ngi nuyu tamit sama coach ak coach Khalifa. mooy di leen wax ni c'est Moussa Faye capitaine de l'ASC Ngalam voilà euh, coach oui. Ngalam joué na phase nationale mhm. à un moment donné sax je ci ci ci ci ci boo dégloo ci population thiessoise bi dañ lay wax ni la Ngalam avait la meilleure équipe des représentants de Thiès équipe yi représenté woon Thiès yëpp Ngalam a ci mën mhm. te effectivement ils l'ont montré mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans le parce quest ce qu'il n'y a pas une porte pour pour pour d'abord di wax alhamdulilah dire que ce n'est pas évident pour euh, pour 29 équipes 28 ou 29 euh, pour une première aussi participation une phase nationale. Il y a une demi-finale. Mm-hmm. et ce n'est pas évident au début était question de participer pour participer euh, c'est ça nous invité quoi invité mhm. au début c'était de participer mais comme on, a l'habitude de le dire petite vient en mangeant en ce moment là ko am parce que prestation est c'est une équipe capable de prendre la coupe mhm. mais bon Dieu l'a voulu ainsi c'est euh, une très belle équipe aussi de de de euh, Kondo que des euh, prestation bas opposition au bas aussi hein. Euh, comme euh, demi finale euh, nationale nous menons le 1-0 Nous avons presque à la je crois 89 minutes avons égalisé, ce n'est pas évident. Nous avons série tir au but nous avons kuy deux au but gagné. Mm-hmm. mais bon defar suñuy quoi pour moi, les gosses ont fait l'essentiel les dirigeants ont fait ce qu'ils devaient faire les supporters et et tous mais ce sont les dieux du football qui n'étaient pas avec nous di wax bon di parce que loolu quoi parce que loolu la que ñam nañ ko ñam ko mu neex ko actuellement yi objectif mhm. ñu ngi si wu si lañ parce que c'est principalement principal mooy dellu war national loolu moom dëgg yàlla rek la ñu mais bi nga bi nga final bi seetaan final bi. si si si mais est ce que amoo regret quelque part. waay waay parce que après tu as vu les deux équipes yi nga xam ne ñoom ñoo final. vraiment yàlla mën. y' a un certain moment où les gosses ah. m'ont fait rêver hein un certain hmm. moment bah, vraiment. bien sûr bien joué carré final. finale. j'ai fait rêver tout le monde hein. waay waay waay mais bon. ça le football quoi parce que soo la finale. soo xoolee demi finale ça sax parce que c'est la finale ah hein, ñu nag dëkkandoo. waay beaucoup plus discuté c'était beaucoup plus vraiment sur le plan jeu sur le plan tout sur tous les plans hein, parce que son xoolee ñu nekk ils l'ont dit hein, opposition bi am ngalam ah, mais même même après légalisation. il y a une opportunité de de de de de de mettre. cest place. égalisation euh, parce que malheureusement je ne t'ai pas dit au départ parce que moi j'étais là j'étais pas là ce vendredi ah là. ah j'ai suivi le match à travers la télévision à Louga. tellement que dans tous mes états. parce que pour moi, uh-huh. le plus difficile, le plus difficile Mais c'est ça, comme tu l'as dit, ce sont les dieux du football. C'est le football qui n'est pas avec nous, mm, c'est ça le Parce que même après l'égalisation, mm-hmm. après l'égalisation, moi j'ai vu qu'il y a eu une opportunité de pouvoir mettre un but. Mm-hmm. Parce que de Kendo, de de Place, ah, espoir. Si, parce que si on euh, il faudrait prendre des risques parce que demi-finale, mm. nous on a joué avec 4-4-2, après joué 4-3-3, mhm. après joué 3-5-2. On a fait des changements, on a pris des risques, il fallait les ah, prendre. bien sûr, c'est normal. Hein? Guinée est défenseur, Dougal est attaquant, il fallait le faire. Mais moi, si je Dougal 10 minutes plus tôt, peut-être que je gagner le match. Mais moi, je Dougal presque le match d'hier. 89 minutes Dougal, il a arrêté de jouer 3 jours, mais si je suis 10 minutes plus tôt, 80 minutes ou 70 minutes kon mënuñu am ben ascendant psychologique gagner le match quoi. mais bon toujours éthique c'est ça quoi su défaite suñu rek ñoo na. quoi ah, non non rien ne marche bu dara daree ñëw. waaw ah. dara. Ah, mais ma dem ci euh, capitaine tout bon mais Moussa Moussa li ma posé question ba poser la euh, coach bi la lay posé Moussa yaa yaa nga ci match bi. et puis j'étais vu nak après légalisation gis naa la nga nga def fa jubilé boo xam dama ragal ne est-ce que sax man dama ne est-ce que ki sax amati na condition physique bi parce que. Euh, vraiment affaire bi dafa ñëw à son heure quoi mais Moussa en tant que jeune pap en tant que grande équipe maintenant yo lan moy sa lan moy objectif par rapport ak euh, ASC Ngalam cette année ci surtout. waaw objectif bi objectif bi instant yi ASC Ngalam comme ni ñu waxe rek nekatul équipe bu ndaw. Hmm. waaw boo gisee prestation bi def ci phase ñu ci tak regret parce que suñu sañon jël ko quoi. ni nga wax nii ba léegi défaite bi mi ngi ci man ba léegi parce que man dama nekk gagneur quoi. waaw mais est-ce que d'accord nga nga dem ak petit Thialy mu lay yóbbu ay mi-temps 0-0. waaw xam nga football moom dafa football dafa nekk. parce que parce que parce que nit ñi aussi ci nan lañ toogoon ah parce que Thialy yi nga dégg sa petit Thialy ngalam ah. waaw mais day dafa kii woon trop quoi c'était pas équilibré quand même. waaw soo gisee tamit match boobu mu demee noonu avant ñuy dem man maa ngi ciy waxtaan ak booy parce que man peut-être ma am naa ci expérience bu ndaw quoi. Mhm. parce que bu ñuy dem maa leen naan match yi mooy gën a métti. match phase parce que dañoo xamante. maa leen leen mhm. bu ñu demee bu ñu xeeb match bi. parce que seet damay dem fa laay entraîné damay gis booy bëri jaal yi. am naa ni suñu demee premier minute dañuy ñu suñu kaw parce que il faut se dire que ñii duñ ñu gagné. parce que pour pour ñoom bon maa dóor ngalam doy na doy na seen championnat quoi. sax ñoom nañ ñu gagné rek. waaw leen nag il faut que ñu dugal loolu suñu bopp dina métti mais il faut que xam ñu ñu suñu bopp xam ni tamit les phases de woon mais lii phase de la ñoo xamante parce que du doon benn. waaw du nekk benn moom. amul xeeb boo xeebee rek équipe gagné la football moo demee noonu. gis nañ fi gis nañ fi récemment récemment rek Real Madrid benn équipe bu ndaw moo ko fekk dëgg. bien sûr éliminé ko xaw na bu doon bu doon bu loolu dëgg la yooyu yëpp ñu ngi koy demaale tamit mooy ndalam moo nekkatu équipe bu ndaw. waaw compétition bu ñu nekk rek dañ ko war a jël. waaw man waxuma sax gi dem ay final yooyu noonu waratuñoo dem waratuñoo sax final dañu war jël coupe. parce que équipe bi noonu lay màgg équipe noonu lay ah. màggee mooy mu egg yenn niveau yi yeneen équipe yi eggul cest à que. même si je départemental mais j'ai été phase nationale phase nationale du c'est pas donné à n'importe qui bon donc boo demee ba phase nationale je crois que kooku amatul amatul discussion c'est objectif de la phase nationale parce que normalement parce que c'est l'objectif de Diakhao c'est l'objectif de Grand Thiès c'est l'objectif de de de R100 parce que donc ni ko R100 di tegalee noonu ko war a tegalee Tégalé, ko keneen ko parce que c'est ça c'est ça hein il n'a plus le droit de de régresser mais malheureusement. ngalam dafa nek dans un quartier bu xawa bu xawa bu xawa doy war parce que dafa quartier bi ci bop mo beuri ay derby beuri ay derby te derby bop comme ni nga waxe xam day na xamante xamante bo xamni pour nga gagner ci kenn problème la wa léegi ngay deugmal match caali bon caali nak parce que ni naa ne sax presque ma bet noiru ngalam pratiquement parce que mom lu mu indi gagné ngalam te caali mi ma gis ni gis na ne vraiment c'est une équipe

waaw ana boobu. équipe boo yaakaar ni moo ci gën a bon beneen équipe bi bu gënee baax du ko dóor. donc am a ci expérience quoi. Mhm. jàppewu ma ko match bu ndaw te xam naa ni match bi mooy gën a metti sax suñu suñu match yi suñu match yi ñu ci phase yëpp match bi moo koy gën a metti. ah bon donc dinañ dema dinañ ko demaale non du yomb. caali sax ah. bi ne caali instant mais Charlie, du nelaw Thialy Thialy mais Thialy est-ce que am le droit loolu aussi parce que Charlie aussi ma defee ne ils sont là pour rebâtir encore une autre équipe parce que c'est une génération jeune. ba mu demee ba presque Thialy amatul équipe hein? parce que génération boobu je crois que est-ce que Charlie dina ko gaaw a À à moins que mu accepter aussi nekk outsider car keroog muy muy Ça veut c'est-à-dire que. de préparer une équipe pour deux ans trois ans pour mën a egg mais ça ne ça ne veut pas dire aussi que xam nga nawetaan la ça ne veut pas dire aussi que de ñëw rek. nga daal di joxe lax bi nga mbaj mu joxe benen bi nga mbaj du nangul lolu koko c'est sûr voilà chali ñom bu len bu len ñom mën nañ sax perdre trophée mais ngalam bu mu leen dóor waaw déjà le rek le rek motivation la waaw xamna naa xam naa ñom si buñ dajé ngalam dañ ci def lépp waaw di que ñep mën nañ ñoo door bu mu sax ngalam waaw ñom non lañuy démé mais mais mais mais bala may ñëwaat ci yow parce que dina ñëwaat ci yow ci ci kaw ma jox euh, coach mu wax ma exactement mom

mais des impérieux. Mais nous, moi, nous montons en puissance, nous sommes wach. Ah, moi, j'ai vu que vous les avez épuisés. C'est ça. Et ensuite, maintenant. Mais vous savez que, moi, j'en ai su que, près de les mettre, pour nous gagner ça, mm-hmm. près du Yombo. Parce que, mm-hmm. Dieu y a un Yop. Mais moi, nous sommes wach, nous sommes en puissance. C'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Nous avons une compétition. C'est ça, nous freinons. Moi, je suis obligé de mettre, je crois bien. J'en suis très sûr, moi, Magal Toubabi parce que dañ ko programmé mercredi avant Magal Touba moment boobu gos ñu ngi ci compétition phase nationale nek en jambe vraiment mais bi ñu demee Magal Touba parce que nous, euh, plus d'une semaine sans nous entraîner. hein. Bah, aussi dafa kese c'est tout le monde hein. non honnêtement niveau niveau niveau niveau compétition mais sur le moment bi muy jigee si nationale je crois que euh, dans le gën a yomb quoi. Mhm. mais match bi comme Moussa ni ko waxee ça va être un match très très si ñoom jaxal lu mais nag bon football la match de football euh, quoi on respecte beaucoup. Mhm. mais aussi gommes gëm les qualité vraiment. Bon, c'est un match de football, certes, ça va être difficile, mais vraiment. Mais il n'y a pas de comparaison possible, hein, parce qu'André ouais. Ngalam, Charlie, actuellement, il finit sincèrement. beaucoup d'adversaires, mais bon, de le mettre trop, quoi, de le mettre, mais bon, football, parce que c'est le demi-finale, Gossou, c'est de la même chose. Euh, si, si, le papier, on était trop supérieur à Gossou. Gossou, on a éliminé demi-finale, Daogué. Non, mais Gossou a une équipe, hein. J'ai vu ce match-là. Mais Gossou, Gossou, wa mais de nom, ça veut dire que de nom, coach, de nom. Euh, ngalam moko ko ëpp doole mais boo xamee jour yi ngalam xam jour yi gëstu xam ni gëstu gëstu année yooyu moo presque moo mënoon ci secteur bi ah parce que ils ont ils ont terrassé Thiali terrassé ngalam terrassé Diakhao je crois les grandes équipes 2010 ñetti équipe yu mag yëpp la ñoom ñoo leen dóor mm-hmm. donc donc gëstu avec une bonne équipe mm-hmm, mm-hmm. mais ça à dire que je dis que bon je ne sais pas mais Thiali Thiali actuellement par rapport à ngalam il n'y a pas de comparaison possible parce, que, si les gosses respectent l'adversaire, mettent la manière, c'est ça. Parce que jouissent une vraie valeur. Très bien. Parce que aussi, euh, il faut que les gens reconnaissent que Ngalam est 2, 3, 4, 5, 6 fois plus fort que Djali. Fini Tolni, mon mhm. habit. Mhm. Parce que je dis que, vous avez dit que Ngalam avait la meilleure équipe des phases nationales. Mhm. Donc, voir que Ngalam actuellement, on ne peut pas sortir trois meilleures équipes dans la région de Thiès c'est mhm. donc on même si même gagne par surprise su ñëwee war na mhm. la logique c'est ça mhm. la logique. parce que keneen parce que Thiali Ngalam su gagné euh, euh, surprise là. su gagne, Ngalam de surprise de surprise. parce que les gens diront que c'est normal. Moi, je mu metti comme vous l'avez dit effectivement. Comment faire Phare national soo une ñu a une position outsider les équipes au départ calculé wuñu ngalam. le nom. Hein? le nom. Au départ, Parce ouais. qu'ils ne connaissaient pas les joueurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bien joué, premier match, deuxième match. Moi, demi-finale, l'angage voilà, c'est Mélène. Euh, demi-finale, de Boko, match de poule ou bien huitième de finale, quart de finale. Parce que moi, bon non, les gens considèrent comme des outsiders. Mais maintenant, on même dit que qui favorite, là, Donc Donc, c'est très difficile. Mais les euh, parce que comme nous avons dit, j'ai une équipe, ils vont jouer sans pression. Ngaram, ils ont gagné 4-0, Charlie, qu'est-ce non non mais par par par malheur mu nul ngalam rek. su nuyul rek fait de. nul quand il faut cette pression la pression va de l'autre côté. Hmm. mais l'essentiel c'est de gérer la cette pression là. Hmm. positivement pour entamer correctement le match c'est très important. c'est très important. Ah, je je vais vous dire une chose Yao, tu es le capitaine de la Ngalam. tu as une pression bien sûr parce que tu connais, tu es le capitaine tu viens d'une phase nationale tu tu tu es d'une phase nationale donc logiquement tu as joué à Tchali, tu as joué à Ngalam comme nous, avons ko waxee xam nga donc euh, xëy na peut-être am sax ko normalement mais yooyu yëpp réuni yow nan nga bëgg match bi match ko quoi sur le plan surtout de la discipline, pas tactique mais sur le plan du comportement des supporters sur le plan technique yoy, yoy, mais sur le plan des du comportement des supporters ak yooyu nan nga bëgg match bi demee aussi fair play rek. voilà ñaari équipe ñu fair play quoi parce que tali ngalam benn la. boo xoolee ñun la plupart tali lañ nekkoon am na fi ay. 4 jours xaw ma 5 yu nekkoon caali ñëw ngalam am na ay jours yu nekk jugee ngalam dem tali ren. donc yaakaar naa ni dara xaju fi quoi. dara xaju fi te ko fi xajal sax. mu nekk ci biir terrain bi ba ci biti ba ci dirigeant yeeg yëpp nañ football ci fair play ku gagné ñu ànd. wat ci jàmm quoi. man fa parce que loolu c'est très important. Mal de ma ma coach parce que coach euh, Aly Ngalam un derby peut être que qui def ko dundou peut être que yow dundou ko dundaloo ko benn yoon ko am. mais euh, ku la xam xam na ci fair play. Mm-hmm. waaw donc il y ci comportement comportements qui na match mhm. surtout au niveau des supporters parce que je sais que les joueurs sont toujours ensemble. Mhm. donc warul mën a am problème boobu. léegi lan ngay wax lan ngay quartier ça tout le monde surtout les supporters je commence d'abord par les joueurs. Mhm. par les dirigeants les joueurs les supporters Le gars esprit de sportivité un esprit de fair play. C'est un match de football un match de football reste un match de football. dès que c'est un match de derby mais c'est un match de football.

waaw di wax gars yi ñu gën a mobiliser wu rek xam nga ñu gën a mobiliser wu xam ne équipe bi nekkatul équipe bu ndaw waaw ñu koy gis ci ñu koy sentir ci entraînement yi comme ni nga ko waxee rek entraînement yi ñëpp dañ di wër di ñëw di teewee parce que bu mag lañu léegi quoi match bi ñu gën a mobiliser wu xam nga yi tamit li ñu daan def xam ñu ñu gën ko def coach bi tamit xam nga nga nga nga nga wàññi pression bi quoi parce <laughs> que da ngay pressionné <laughs> xam ni xam nga am nga groupe xamante ni jarul jarul pression jarul dara li nga soxla yëpp nañ la koy déglu incha allah. incha allah bu jour yi moom amaloo mu leen wax parce que xamante nañ xam naa ñëpp quoi. xam naa ku nekk ku nekk xam na euh, valeur donc amaloo mu leen wax quoi. vraiment maa ngi remercier ñëpp di remercier groupe bi di remercier coach di remercier coach Sylla aussi merci beaucoup. merci capitaine Merci. ñu kii si la mu def mu tàggatoo moom. waaw comme il l'a dit ah. D'abord, je di di leen remercier hein, di D'abord, si coach Khalifa. terminer sans vous remercier remercier remercie la que euh, Cokkaat FM xam naa si j'ai suivi. honnêtement honnêtement tu nous beaucoup mon personnellement. tu phase de apporter apporté nga lu bëri ça m'a vraiment ça me tient à cœur honnêtement ce n'est pas évident. da nga bàyyi sa yitte bàyyi si lépp vraiment ça m'a tellement touché nous taw ma suis si suufu tool bi conseiller sur tous les plans sur le plan technico tactique physique sur tous les plans parce que li ñuy wax si mbir mi métier bi. le dur jur si kër rek am yu amal nga ma yu bëri quoi vraiment di aussi remercier di ñaanal di wan yaa xam li nga bëgg sa xol ñaanal suñu boppam dafa vraiment ça à cœur quoi honnêtement vraiment merci beaucoup Khalifa. voilà déglu naa mu nekk loo xam ne dégg naa ko ci Thierkat FM. Mm-hmm. et d'ailleurs ce sont des des des des Thiessois ñoo waroon téléphoné di ma wax déglul Thierkat parce que si la doon rek déjà doy bon mu doon euh, euh, Prestige TV à l'entraînement de l'ASC Ngalam di préparer son match. Euh, de derby local contre ASC Tchali euh, euh, l'entraîneur Silla le capitaine d'équipe Moussa Faye donc ñu war le football ci fair play nous sommes ñëpp après nous dem une prochaine fois jërë leen jëf mu TV à l'entraînement de l'AS Ngalam